yaqa bi kasratin kabaxtatan zaydun tala walam yunakkar xaaliban sulhaaliin lam yataaxar aw yuxassas aw yabin min baadi nafyin aw mudaahihi kala yabgi mruun ala mriin mustafila wa sabqa haalin ma bi harfin jurraqat abaw wala amnahu faqad waras dafa wax ne masdar mm-hmm. bëri na lu mooy doxaal mm-hmm. bu dee nakira la mm-hmm. fekk dañ ko tawil mustaqil wala ñu tawil ko leneen wa masdarun masdar munakkarun ma demuñu nakiraal yaqon dana mu tabbi haalan di haal ala tawilihi ci tawilam bil mustaqil ci mustaqil anda siiba wayhi ci kabratin ci Um um masdar buy nakira bari na lu muy doxal fekk nañ ko tawil sifa ala tawil yi bil wasfi indi sibu way kani ki waxta jenga ne baxtatan zaydun tala baxtatan masdar la tey nakira la ñu ko nasab ne xaal la sibu way ma dañ ko tawil baax itam nga ne zaydun zayd tala fekk na mu baxtatan birom mu daji bett yéen ñu wax ne déedéet yabxutu baxtata yabxatu baxtata masdar la ci fexlu buñ saasfe jumla fexlu bi mooy nekke barabu nasab bi wala jaa dikk na saydu ndax doon nga ci teg rakidan masdar mm. la fexaal la benn dañ koy taawil rakidan mm. wala yarkudu rakda mm. wana dara tuuti na kaw nu hoo nekk masdar de maarif baatab masdar baatab xaal di masdar hmm. te nekk maarifa laftan hmm. loolu bariwut hmm. ne ke rajaa dellu na hawdahoo mbir moom wëñeeku mbiroom mu daaji wëñeeku ala batihi ci njëlbeenam hawda masdar la xaal la te maarifa la ndax mu ngi laf damir loolu bariwut dan ko tawi rajaa haidan ala batihi dana masabu fi wëyi wala rajan yawood awdahu ala badihi rujuna ki wax ak la wéykat ba wax ne faasalaha alhiraka noonu la wéykat ba walam yasudha walam yusfiq ala nawasir dexaati faasalaha hebal na leen alhiraka mbir mooy ndeway rajaj loo da leen xiir ñi ñi rajaj loo walam yasudha tere wut leen dakku wut leen ولم يسبق يرمت على النغل في الدخل في نغل الرجل له العراق مصدر عرك لا mu ngi am xal dañ ko nasab ne xal la dañ ko tawil muarikatan faatul muarikatan ma daan wa masdarun masdar munakkarun mari mu ñu nakkiraal yaqama dana de tabbi haalan de haal bi kasratin ci lu bari waxta dégg nga ne baxtatan zaydun de salaan fen ganaw baax tatan mbirum mu wàcce weteeg wete borom xaal mu domaari ba moo gën a bari mm-hmm. ndax comme mubtada la mm-hmm. ah, ndax kii sa xabar bi nga doone mubtada yow mi doon mubtada mm-hmm. yaay do borom xaal sa xabar de xaal taxam mu ibtidaa maarifa mooy ba walam yu nakar na kiraaleeku suul haali borom haal xaaliban mm-hmm. ci lu not mm-hmm. li am na ko ngir naka moom mm-hmm. kal mubtada yi mu ngi mel ni mubtada ni ki mubtada la maanaam ci maanaam su ko defee nag nekk na lépp looy layee bu mën koo def mubtada su ci amee rek mën nga koo layee defal ko wane in lam yu in lam yataaxar li nga mujj su fekkee nekk rek di xaalam bu ko jiitu mën a mën a amaat ka qawlihi ni ki la way kat ba wax ne li mayyatan mooy santaladun qadimu abaahu kullu atama mustadimu li mayyata ñaal na mayyata talalun gent qadimun bu daaji yàgg mooy san juróom gent ba daaji bee abaahu rappal na gent boobu kullu atama bépp niru ñuul mustadimu bu daaji sax muhisan xaal la ci taladun kii nakira bu mm-hmm. duloon dara itam jiitu gi mu jiitu taladun man mm-hmm. nañ cee dëgg ne moom mooy xaal mm-hmm. taladun de nakira taladun de borom ak kon nakira bu ko xaalam jiitoo ak li may yeta muhisan taladu yeloohu kaannahu xilalu li may yeta ñi xaal na may yeta taladun gent mooy san juróom gent bu daa ji loo dana feeñ jant boobu ka am na daana kom xilalun nga dee kaay la nga moo hisan xaal la ci talalun ni nakira li nga xam ne nakira ji ko ji xaal ji jiitu moo tax ñu naan aw yu xasat wala nakiraaleef wala jagleef ko defaleef ko tafsiir bi wasfin aw idaafatin aw amalin nakira buy nakira mu xasasa dana mën a am benn dafa am naat naat bi may ko taxsiir mm-hmm. wala dafa nekk mu daal ànd ak mu daal léegi loolu <coughs> mooy taxsiir mm-hmm. wala dafa liggéey ci beneen baat liggéey boobu may ko taxsiir mm-hmm. taxsiir ci nekk la buñ ko waxee mooy maanaam maanaam yaa tawal kooku ko yaatu niki lan najjayta yaa rabbi nuuxan wastaja wastajabta lahu fi fulukin maaxirin fi lyemmi mashuura mu ne najjayta musal nga nuuhan ya rabbi yow sama borom musal nga nuuh wata jabta te nga nangul la woo ñaal nuuh fi fulukin ci gaal maaxirin guraajo xotti fil yemmi ca ndox ma masoo nan bi om lu mu jokkal masoo nan xaal ci fulukin ci fulukin nakira la waaye nakira mu xasasa la ndax maaxirin hmm. bi ko naatal moo ko may taxsis moo tax wala dégg nga ak fi arbaati ayaamin sawaan hmm. sawaan xaal la ci arbaati kii nakira hmm. waaye nakira mu xasfasa la ndax laaf gi jëm ci ayaamin hmm. moo ko may tax si wala nga ne marat romb naa bi bin ci aji tuur saydan si qaiman juróom mu aji taxaw qaiman ci xaal xaal la ci daari bin kii nakira ay nakira muxassasa la ndax ñu ngi ko jox liggéeyu fi'il mudaari bi mm. mu ne ko oh, mooy fa'ila fi'lan di maf'ul la mm. liggéey boobu mu liggéey liggéeyu fi'il moomu may taxsiir mm. loolu moo tax mën a am àgga qaa'ima waaw nakira bu fekkee dafa nekk muxassasa benn bi taxsiisin wasfii la aw idaafiyin aw amaliyin taxsiis boobu day tax mën a am moo tax in lam yataaxar ndegam mujj aw yu xasas te mayeesu ko taxsiis aw yebin walla mu bir min baadi nafin ci gannaaw dàq ba mu daj walla lu niroo dàq wa an nañu wa istifaa nakira bu toppee dàq dugg ci si yàqu nafi dana mën a am xaal naka doon su fekkee dafa topp nafi walla istifaamul inkari dugg ci si yàqu istifaam walla si yàqu nafi dana mën a am xaal li nga xam ne bu booba dana mën a doon mubtada albatan fi complement fi noonu la nawee juma muy mu lay na dégg kan gi waxta di nga ne laa yabxi bu tooñ imru un waay ba mu ne dàq mooy maa humma mu déedéet ndax loolu la maa humma min mawtin iman waaqiya walan tara min ahadin baqiya mm-hmm. maa humma dogaleekul mm-hmm. himan benn kaadanga mm-hmm. maxsuurul dañ ko rafa mooy naa yu maayli humma waaqiyan bi noon muraaji fek min famtin de waaqiyan ci himan mii nakira waaye dàq bi jiitu moo tax maa humma mu ngi mel ni fu walan tara den ngay gis min ahadin kenn baqiyan muraaji nëkkira bu fekkee dafa topp dàq mm. man nañu dëgg jëlu defal faal mm. su toppee si bu nafin te mooy nayu istifam mm. man nañu dëgg jëlu defal faal bam ne nayu day misaal nekk ni ko waxtu jëngane la yem di bu tooñ un waay xalam in ci waay ak la yarkanan ahadun ilal ijabi yawmal waxa mutaxawifan li amami la yarkanan bu jeng ahadun kenn ilal ijabi jëm ci dattu mooy dellu gannaaw yawmal waxa ci bisu xare mutaxawifan biroom mu daa ji ragal li amami de mutaxawifan haal la ci ahadun kii nakira waaye nag ahadun nahyu te mooy la yar kanam hmm. ahadu dafa niroo naf yi loolu hmm. dinañ def ko bañ xasal ba hmm. nakira ji xamaal mu taxawee fan gaal ci xaal mu kii nakira ak yasaay hal humma haysun baqiyam fatara binafsika masrafi ifatika al amala yasaay eyo sama anandoor hal humma ndax dogaleef na haysun dundu baqiyan birom dundu ba daa di def batara saw su nga jënd na si gañaa saw alhamdulilah gàtt hmm. di nga jël sori hmm. al amala ay mébal xam nga baaxi yan xaal la jaay sum gi na kër hmm. dafa dem muy istifaar bi jiitu muy al umma aw yëkkoon wala mu nekk moom xaal jumla tan jumla waawiyatan jay ko ju waaw wala xaal jumla boo daree waaw la dana waral borom xaal mën a doon nakira ni ki aw kalladi marra ala qaryatin hiya xawiyatun ala urusiha jumla bu hiya xawiyatun ala urusiha muy xaal jamari xariyat nakira la waaye xaal bi doodu jumla bu watalay ci waaw moo tax aw aw yëbin wala mu bir moom nakira ji min baadi nafin ci gannaaw dàq dana mën a am xaal aw mu tahi wala loolu doon dàqate mooy na yu ak istifaam mm. kan yi nga waxta jegen lay yokke bu tooñ mm. un waay xala bi ci waay mm. mustafiran bi mu daal jëm ba tooñ yi nga borom xaal su fekkee dafa ànd ak arab bu jaar ñu bëri ci noa yi dañoo bañ alante bu ci ibnu maalim na du waaye wa sabqa wa waqat abaw bañ nañu sabqaha lil maymuuna maa borom xaal joo xam jur na jarees ko yaa benn jar mu jur na ay ñoo xam ne borom xaal buñ ko jaree xaal maa borom xaal joo xam jur na jarees ko yaa benn jar wala am na woo mën na lu ma Hmm. sunu maal bi loolu de gars yi xay nañ ko hmm. ba am di dugg xay na faqal wara da dikk na de tasallaytu turran hmm. ankum wa ba'dakum dikum bi digrakum wa hatta ka annakum hindi tasallaytu nisuna ankum jiyan turran durum ngeen ni mboole ba'dakum dikum ci gannaaw seen sori bi digrakum ci di leen fàttale hatta ka annakum ba daanaka hindi yéen a ngi fi man li may galalee sama taxaw ci lu ma leen gisul eh. mooy dama leen a xiraat ba mel ni ngi teew rek eh. ba mel ak mel ni ngi teew rek eh. ba man leen a wéttale ko yéen nga turran xaal la ci te kum kuñ jarak xan la kon borom xaal dinañ ko jarak xaram waaye turran jiitu na kon borom xaal dinañ ko xaram te xaalam mën koo jiitu ak isal maru ayatul muru atu nafsi an idrakuha fehlan alayhi asir isal mar u bu lott loo xewaay nga ayatu isal mar a bu lott loo xewaay nga firaale ayatu almuraatu mbañrus naasi andro muraaji ndawe mais su fekkee ci nguneem la ko jomte woon wa idrakuha jot murua asirun lu jëfen alayhi ci moom ana lan biro muy tool su demee ba dem ak jomte ko itam kaalan xaal la ci alxaal bi jarak xalaat te mu ngi jiitu alxaal mm. loolu moo lay xamal ni borom xaal mm. dañ ko jarak xalaat te du te xaal bi jiitu mm-hmm. ak wama arsalnaaka mm. illa kaffatan linnaas kaffatan xaal la ci annaas kiñ jarak lam te kaffatan moo jiitu annaas mm-hmm. kon borom xaal mën naa doon kuñ jare xaraw te xaal bi jiitu mm-hmm. waqat abaw bañ nañu sabqa xaalin jiitu xaal maa lu xam ne jurra jareef na ko bi harfin ci arab ñoom dañoo wax ne borom xaal kuy kuñ jaree harafu jaar xaalam du ko jiitu wala na woo man nag du ma tere dunu maa le mun loolu nag moom du bàyyi ndax ko xar wala da dikk na ci wax